hamdu bi Allah batu la ilaha illallah la ilaha illallah abu rijalullah la ilaha illallah muhammad rasulullah fo del ci aljana buntu ba bi gis ñu fa batum la ilaha illallah jumat ju allah muhammad rasulullah bisul Kharnaini di war batom ndox boobe ñi woowe aynul ayatina doon xar nay ni da daan toog ak malaayika ma nga ne daan waxtaan ak moom tanaan ko nu di jaamoo yàlla malaayika ma naan ko doon xar nay ni sunu jaam yàlla ak jaamu wute na sunu jaamu yàlla am na malaayika yi nga xam ne dañuy taxaw kabar ba keroog yomal xiyaam am na malaayika yi nga xam ne dañuy ruko ba keroog yomal xiyaam am na malaayika yi nga xam ne dañuy taaya ba keroog yomal xiyaam zul xarnayni daal di jooy jooy yu foor tanaan ko bëggoon na maa gudd fan lool ba mën a jaamu yàlla gën jaamu malaayika ma naan ko am na bëtum ndox boo xam ne moo ngi ci kaw suuf ñu ngi koy wooye ay nu la yaatin ku ca naan dootoo faatu xanaa nga bëgg faatu daal di faatu mu daal di laaj malaayika ma bat boobee fu mu ne ci kaw suuf mu naan ko xaw ma fu mu ne waaye moo ngi ci sowu jant ñu ànd maa di war bëtum ndox boobee daw na fukki bi at ànd ak soldaar ya mu àndaloon ba jot buntu la dem daal di jaar ni xudar jaar ne dem na borom boobu la dem nga dugg ci leer dugg na ci benn kër fekk fa benn picc mu ñu nas ci benn weñ mu teg tànkam picc ma naan ko kooku ko mu doon mu naan ko man la Zul Xarnayni mu naan ko lu doon say tànk foo jaar ba soldaar yi karuñu la foo jaar ba soldaar yi karuñu la mu naan ko waaye comme ñëw nga kay waxtaanal ma kay waxtaanal ma kay waxtaanal ma danaa la laaj ñeenti laaj nga tontu ma ñeenti laaj picc ma naan ko dul xarnayni ndax doomu aadama ñoo ngi boole suuf ak ciment di tabax di tabax ci kaw suuf picc ma mer mer bay doga say barab ba mu daal di koy laajaat ñaareelu laaj laaj ba ma nga naan ko zul xarnañ ndax doomu aadama yi ñoo ngi seede ay baati neen maanaam baatu fen mu naan ko ñoo ngi seede baati neen ci kaw suuf picc ma mer ba fees barab ba zul xarnañ ni bëgg a daw mu naan ko bul daw taxawal ma laaj la mu dellu laajaat ko ñetteelu laaj ba mu naan ko ndax ñun ñaa ngi sangu janaaba ci kaw suuf mu naan ko ñun ci ma xawarees mu dellu laajaat ko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 ngir rab bi ñu ma sam ne dañoo yonent yàlla Suleymaan jur leen ngir dee tabax leen ngir rab lu ngeen jur day dee lu ngeen tabaxee dina rab yow jaan picc ma sam na tanaan yonent yàlla Suleymaan ak a neexoon tey mi ndee fi bi ndee fi leen ndax li ñu nekk ceeb ma yàlla picc ma sam na tanaan yonent yàlla Suleymaan def leen lu baax ndax di ngeen ko fekk ci seen kanam ma picc ma na tanaan yonent yàlla Suleymaan bakkan bu ñam dund day ñam dee lu ma sa tooyee dina ma sa waaw lépp dina tos mu des jëm yàlla suñ picc ma na tanaan yonent yàlla Suleymaan pitax maa nga naan subhaana rabbiyal a'laa min asmaa'ihi wa min ardihi mos maa nga naan yonent yàlla Suleymaan taskere ñeel na waa ne attana rek mooy nan ko waajal balaa ñaaw xamal ne koo mën a doon fa jaar yonent yàlla Suleymaan picc yaat njanaaw yaa da daan waxtaan ak ñoom ngelaw la da koy indil wax joo mën a wax mu jëm ci moom nga dox di gàddaay jëm ci weer moom mu dox ko ci benn ngont bu jógee ci ngelaw li lay jaar xanaa yàlla bu rekk moo mën a seddale tey anamu nguuram nga jeex na nguur ko di nguurug sun borom du sax fenn yàgg yàgg day xaybar wàcc bi xuraa na nga def jaamu yàlla far mu di say mbir soo bëggee jaamu yàlla na nga ràññee farataak sunna doora jaamu jëkkee kër farataak sunna ku leen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 daawa la ca xew xidama tuuti laa lay masal ci seeni jaar-jaar ndax xajul ci way wi te jigéen day bakkaar bu dul ko nag yàlla pexem seytaane bañ wucceeg jigéen ñu sax ji kon Adama ak Awa nga fil ñu faf fa sosoo foofa bi laa niiraana bu yàlla daf leen a dugal ji bu ngeen di may di dem niiraan yéen moom aljana ak seeni doom yéen ko moom lépp lu dul garab gi ku leen ko laal bu leen jege këram gi pexem seytaane a jaar rambax ji aw ak Adama ma nga naan ko sowu jëmoon garab gi lii war na ma fekkoon na Adama yi war aljana iblis gannaaw ko di fen ba sonn ba awa mos ga daal di koy sàkk lekk ko Adama mu daal di koy wax ko li ya ma nga su adama wane doom ya dana far sa tur ba dootoo doon dara ci nguurug sun borom jibril moo gën a gaaw mel ak keroog ba mu agsee dafa xoj aadama mu génnewaat garab ga mu nag sunu maam awa mu senn garab ga moo tax góor di am xor ca pul ga jigéen di am ndam bi mere ga sëkk pour yàlla daal di leen mere wàcce leen daaru duniya yaram yi neen lañ indi daaru duniyaa xobi garab ya lañu nàmboo yëf ya jooy nañu jooy ya jooy ba sonn jéggalu bur bi yàlla ba sonn adama nga wàcc réewi jidda suñ maam awa nga wàcc aswaan la jadd jooy nañu jooy ya jooy ba sonn adama nga naan yàlla jéggal ñu ci baatum la ilaha illallah muhammad rasulullah suñ borom nan ko foo xamee jëme muhammad rasulullah mu naan ko damaa gis ci àjjana yi buntu boo ubbi gis ñu bind fa baatum la ilaha illallah muhammad rasulullah jóg leen dara ca kaw yàlla mu seeni bàkkaar yaakaar ci baatum laa ilaaha illallaah.